ah ñëw nag fii nga xam ni fii mooy xolu Sénégal fii cœur du Sénégal fii moo doon capitalu Sine Saloum fii mooy capitalu bassin Arachidé. si ba colon yi di fi nekk comptoir yi fi dafa comme plaque tournante bi réew mi amee indépendance continuer di jouer boobu rôle de de l'économie tey jii waa Kaolack waa Sine waa bassin arachidier ñépp seen xol neexul su fekkee dañu xool rekk ci dëkkin beeg dëkkuwaay bi xool li nga xam ne moom la nit ñi di dundee muy mbay mi mbay mi dafa loof dafa daanu dafa nërmeel fii rek xool leen ñaata usine fi amoon usines yooyu la ak lan la tourner léegi est-ce que gerte gi tourner fii lay jóge mais surtout ñiy bay dañu son. parce que ñiy bay li taxoon ñu nga ñu gën ci sawar li taxoon ñu gën a productif amatul amuñu semence yu baax engrais bi bala moo ñëw fekk mbay mi sori lol. amuñu équipement agricole wax naa ko waxati ko mag ñi fi nekk dañ ni ñu seen équipement ñaar fukki ak juróom a ngi nii kenn yeesalu ko tracteurs yi ñu fiy wax kenn jotu ci mais surtout problème bi gën a mag pour ñoom mooy nga bay ba sonn ñu fay la sa gerte njëg goo xam ni doo ci gis sa bopp moo tax ñu bari bala ñoo sax campagne bi di démarrer jaay nañ seen gerte. tellement bay bi len doon dundal bay biñ doon dundee gisatuñ ko nekkatu fi mané Khalifa Sall président de la République du Sénégal dana xolaat njëgu gerte ci prix bo xamné Inshallah, incha kat baykat bi dana ci gis bopam Kaolack doon plaque tournante fi ñepp xamnañ ni ëpp bo xamné transport terrestre lu am solo la fi kuy dem ci Casamance kuy dem Mali kuy dem Guinée kuy dem Guinée Bissau ñëpp fi Gayaaw gis ngeen parc automobile bi ni mu mel kersa la mais de manière générale transport en commun muy transport u nit ñi muy transport marchandise yi dañ ko war xoolaat yeesal ko chauffeur yi apprenti yi même ñi moom oto yi gisatuñ seen bopp ci seen ak seen activité boobu nan lañ leen dimbalee ba mën renouveler parc bi de manière à ce que duñu ci ñàkk duñu ci perte mais de manière à ce que sécurité routière bi gën a parce que su oto yi màggatee su chauffeur si amatul outil boo xam ni c'est performant soo bëggee ni secteur bi dina dem na ngay nax sa bopp xale yi dugg ci cag-cag yi cag-cag yi doon mode de transport léegi mais xalé yi niñ koy défé sécurité bi dafa dess mais surtout dañ leen war jàppale mu doon une vraie exploitation mu doon société bo xamni xalé yi au lieu que ñu doon dawalkatu ciak ciak rek dañuy doon ay propriétaires dañuy doon ay entrepreneur en tout cas lolu moy suñu yéene ci ñom parce que léegi kenn jombatul doon càq-càq da ngay gis ku am bac plus cinq da ngay gis ku ba bac plus six ak ku am bac plus deux di dem ci càq-càq parce que xale yi amatuñu liggéey amatuñu li ñuy jàpp loolu dañ ko war dindi dañ ko war defaraat mais surtout Kaolack nekkoon plaque tournante pooru Kaolack bi ëpp la waroon doon ëpp la waroon doon pour wàcc ci suuf dem Casamance pour wàcc dem ci à l'est pour la le Mali doon ëpp boo xam ne dafa waroon tax ba Kaolack doon vraie ville carrefour mais pour bi dégg naa biñ ko dooreeg léegi ba léegi mënul sotti nan ngeen bëggee waa Kaolack développé wu nan ngeen bëgg Kaolack développé wu su fekkee infrastructure de base yi fi war ne dara sottiwu fi Khalifa Sall président de dana fexe ba Kaolack jëlaat place am de plaque tournante du transport de la vie économique fii ci réew mi parce que loolu la yelloo soo weesoo Dakar weesu Thiès Kaolack mooy carrefour bi nga xam ni ci la lépp di dajaloo ci la lépp di jóge di dem na Gambie di dem Mali di dem gine di dem Guinée Bissau nan la ñuy réhabiliter loolu loolu mooy challenge bi moo tax waa Kaolack ñu di leen wax ne lii ngeen di dund xam nañ ñu ak yéen a ko bokk bourse familiale yi ñu leen di jox niñ leen koy joxe gis nga ni ngeen koy jote metti na diis na te njëriñ bi mu leen waroon am la il faudra ñu réformer ko parce que ñi ko sooke woon dañ ko defoon non pour que nit ki di ko lekk mais pour que mën nit ki mën defal boppam mënal boppam dundal njabootam en tout cas bokki Kaolack bokki Sine Saalum xalifa Sall président dana delloo mbay mi dana delloo sàmm gi dana delloo transport bi dana delloo économie euh, Sine Saalum ca fa mu nekkoon mu doon carrefour boo xam ni day doon ëpp